أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الخلق المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki téléspectateurs yi bokki internet ñoo ngi leen di nuyu ci seen kër gi ngeen baaxoo ànd ak ñun di Faaida TV di am mbégte nag ci dikk ak ci seen émission bi nga xam ni mooy euh, bibliothèque euh, de l'islam euh, di leen wax yéen ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nag bibliothèque de l'islam dafa fas yéene dalal koo xam ni ràññee nañ ko fu bare bari ci wàllu terrain xam-xam muy al oustaz Maodo Dieng xadim moom lañ fas yéene dalal fas yéene waxtaan ak moom tomb bu am solo Euh, al oustaz Maodo Dieng nag yaakaar naa kuy war di suivre wàllu internet rawatina ci géew yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam rawatina ci yoon wi di ko gis muy taxawee conférence yu bëree bëri lu mel ni fi nga xam ne nii mooy al wafa bi nga xam ne nii eh, ñu ngi koy taxawal ci weeru koor eh, fële ca Daarul Muxti ay boromi xam-xam di fa teew di fa def ay mawdu ay thèmes yu am solo dogal na bokk na ci ñi fa jaar naka noonu bokk na ku ràññeeku tamit ci wàllu li nga xam ni moo jëm ci tasaare xam-xam ci école Azhar li nga xam ni moo nekk ndaam moom nag doon na koo xam ni ah, fii la feeñe jamono ci Thiès fii ci Medina Fall ah, woy juróom di ku ñëpp xam ràññee muy suñu baay Mor Dieng doonoon koo xam ni ku jeex la ci yoonu murid yàlla dogal mu doon koo xam ni sàkkoon na xam-xam ci daara ji ñëpp miin muy daara Serigne Malick Anne Euh, yàlla dogal fa la jànge euh, lu ci bare bari ginnaaw bi la fa jógee euh, mottalee xam-xam fi nga xam ni mooy ecole al azhar bi nga xam ni daanaka néew nañu dalal fi nit te waxul ni jaar na fa muy école bu yàlla barkeel fii ci réew mi muy al azhar yàlla dogal na fa la jànge ba yàlla dogal mu génne fa ginnaaw bi mu amee baccalauréat am ci at yooyu ci at yooyu rek ci la daal di yàlla dogal mu génn dem fi nga xam ni mooy Égypte Égypte ci école bu mag boobu nga xam ne moom la ñu duppee école bii di Azhar muy Caire ci école boobu yàlla dogal na fa def lu mat juróomi at kon kooku doy na sëkk rek ni maanaam liñ koy doyee moom dinañ ci mën a indil incha allahu taala lu kawe eh, suñ njortu su ko defee yàlla dogal mu def li nga xam mooy taxasus maanaam mu spécialisé wu ci li nga xam ne mooy ad dirasa al islamiya wal arabiya muy étude islamique ak lu aju ci wàllu langue arabe Oustaz Maodo moomu incha allahu taala moo ñu fas yéene indil thème am solo te mooy euh, waxdatul muslimin fii Sénégal wala sax xataa la tatia waxdatul muslimin fii Sénégal maanaam naka la ñuy def ba bennoo bi nga xam ne yàlla xéewaleen na ko maanaam Sénégal naka lañuy def ba du sànku ndax xam ngeen ni képp kuy topp actualité xam nga ni àdduna daanaka mën nañu réew yu baree bari mi ngi tas te eh, ñay xeef ay jullit lañu ci seen biir. yàlla dogal na loolu yàlla musal na ci Sénégal ah, nan la ñuy def nag ba loolu du sànku balañ ciy dugg dañ koy bàyyi mu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Faaida TV incha allahu taala mbokk yi ñu ñëw ak ci suñu thème am solo boobu al oustaz ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo mbokk yi lay seetaan. jërëjëf sëñ Amin bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi allazina astafa waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu sëñ Lamine di nuyu mboolem techniciens yi di nuyu itam kilifa daara ji di nuyu itam mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi ay ñu ngi bàyyi xel te ci gox yi fasantikoo ci àdduna bi di leen ñaanal koor bu ñu nangu di leen ndokkeel itam di leen wax kullu aamin wa antum bi xayrin suñu lamee waaw kay jërëjëf al ci nuyoo bu tey boo am solo boobu ah, mbokk yi comme niñ ko waxee sànq ah, incha allahu taala thème bi nga xam ni moom lañ fas yéene traité mooy bennoo bi nga xam ni mooy bennoo jullit ñi fii ci Sénégal niñ ko waxe sànq yéen a ngi seetaan fi ne eh, monde islamique actuellement li fi xew daanaka réer yu bari gis ngeen ni mu demee ci yu baree bari ñàkk a yi nga xam ne am na ci biir jullit ñi ba mu jur fitna ci seen biir yàlla defal nag Sénégal xéewal goo xam ni boobaak léegi bokk yi ñu bari ñu leen ci ñee ñu xéewal goo xam ne war nañoo fexe ba sàmm ko te mooy bennoo gi nga xam ne yàlla def na eh, mu am Sénégal loolu lépp oustaz incha allah dinañu indil waaye balay boobu dañu bëgg rek alxames nga leeralal ñu tey boo doon tënk baat boobu maanaam maanaam bennoo jullit ñi ci Sénégal jëmmi baat boobu boo ñu ko doon étudier maanaam lan nga ñuy indi wala indi ci suñu tomb yi. jërëjëf mm-hmm. ni nga ko waxee. Mm-hmm. ndax dafa am borom xam-xam bu am solo. Mm-hmm. bu ñuy wax ay Aristote. dafa wax ni su ngeen bëgg bëggatee waxtaane dara. na ngeen fexe ba. baat yi nga xam ne moom ngeen fas waxtaan waxtaanee ngeen déggoo ci. Mm-hmm. kon day mel ni tudd nañ baatu benn. Mm-hmm. tudd nañ baatu jullit ñi tam. Mm-hmm. tudd nañ baatu Sénégal. te euh, boobu daanaka lu neex a xamle mooy lan la. ndax bennoo suñ ko waxee jubluwuñ ci kenn ku ci nekk. imiter sa couleur morom wala ni sa morom di waxe waaye li ci jublu mooy li nga xamante ni moom lañuy ñuy lijjanti ba mën a dundante ak nekkante ci nekkin woo xam ne mucc ayib la ci wàllu pas-pas ci wàllu diine ci wàllu li nga xamante ni mooy ay culture ba ci wàllu li nga xamante ni moom mooy dëkkandoo hmm. euh, li ci topp tam mooy jullit ñi jullit ñi ñi ngi ci jublu xeet wi nga xamante ni mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoo ci jébbal seen bopp lislaam donte ñëpp dañoo war a nekk ñoom dund ñoom ci li nga xamante ni mooy jàmm waaye tam bu fekkente ni euh, bennoo jot na jullit ñi ci boppam dañoo war a boole seen bopp def ko muy benn la ci topp muy Sénégal Sénégal réew la moo xam ne réew mu yàgg la. Mm-hmm. ni ko historiens yi xam leen. Mm-hmm. muy territoire bi nga xamante ni. Mm-hmm. moom lañu nekk di ci dund. te mu wu ci quatorze régions. ba noppi ñu bokk kook ñoo xam ni. yi ay euh, xeet lañ. ay làkk yu wuute lañ. ay diine yu wuute lañ. loolu ñoom lañ jublu ci wàllu. senegal mhm. waaye itam ci lépp boo ko dee tënk mooy daal jullit yi nekk Sénégal mhm. naka la ñuy def ba seen bennoo gi nga xamante ni moom la leen yàlla xéewale mhm. naka la def ba duñ ko ñàkk loolu lañ jublu ci maanaam baat boobu macha allah al oustaz ci leeral bu am solo boobu nga xam ne indi nga ko te mooy ni nga ñu décortiquer li nga xam mooy bennoo maanaam ni duñ caagi ne maanaam copier nit ki ni muy doxee wala nit kële ndax yàlla moo bind wutale euh, dafa mel ni ci biir loolu dañuy dégg ni kon maanaam suñu borom moo bind wutale langue yi wutale couleur yi wutale sax xëy na culture yi ak maanaam aada yeeg cosaan yi mm-hmm. mën na solo nii kii di solo ne kii di gise nii mais benn bi mooy ñu fexe ba maanaam nekkin wi rafet maanaam kenn ku ci nekk la mu nekk mu nekk waaye mu bañ a déranger moroomam mm-hmm. dafa mel ni lislaam loolu moo ni ko taxoon a jóg macha allah muy la am solo beneen bi mooy jullit ñi nga xam ni ñooy jullit ñi particulièrement ñi dëkkee Sénégal mm-hmm. naka la ñuy def ba maanaam seenu bennoo maanaam doon lu sax waaye bëggoon lañ tam oustaz nga ñëwal ñu tam maanaam naka la jullit ñi nekkee maanaam benn jullit ñi démb mm-hmm. am avant tey mm-hmm. parce que ñun ñëpp yaakaar naa ñu dañoo sosoo ci ay baay maam ñu dégg ni ñoom ay jullit lañu woon nekkoon fi nekkin wu rafet maanaam seeni nekkin ñoom naka lañ nekkee woon naka lañ doon dundee ndax ku ne xam na ni Sénégal ay tarixa yu wutee mi ngi fii ku ne xam na ni nga ko waxee sànq ay waaso ak ay maanaam ay ay ay waaso ak ay lu mel ni xeet yu safaanoo yu wuute lépp a ngi fi te naka jekk ñu ngi fi noonu di ko dund naka la nit ñi indil ci loolu histoire du naka lañu dundee woon ci ak bennoo démb. sëñ Lamine. Mhm. laaj nga laaj bu am solo. Mhm. réew mi nga xam ne moo di réewum Sénégal. Mhm. bennoo googu comme ni nga ko waxee ñi fi judd ñëpp. dañ koo donn ci ñi leen fi jiite woon. te la solo. ñu fekk ko te man cee teg loxo rek. mooy ñi nga xam ne ay jullit lañ. Mm-hmm. dañoo copier alxuraan. Mm-hmm. ci benn googu. Mm-hmm. daañu koy dund jëmmal ko. waaw sax dëgg la bala bala ngay àggale kon est doo doo ñu jëkk indi maanaam euh, alxuraan naka la gisee bennoo avant ñuy ñëw ci question boobu ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam waaw wér na ndax mooy li nga wax alxuraan dafa insister bu baax a baax ci bennoo ndax boo xoolee li ko dalee ci faatiha mm-hmm. ba keroog nga yegsi ci minal jinnati wan naas mm-hmm. lépp luy benn la la ndax mm-hmm. lu fi yàlla di digle ñépp la koy digal a dow mbaa mu digal ko ki nga xam ne bu noppee da koy tasaarewaat ci ñépp saa soo xamante ni wax na day wax ni yaa ayyuhan naas yaa ayyuhal lazina amanu wala mu digal sang bi ba noppi farata jooja nam ko waree mu war koo tasaarewaat ndax yëg nga gis nga mu ni ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik hmm. fa in lam tafal fa ma ballagta risalatihi hmm. kon e, alxuraan message hmm. dafa benn le boo xoolee tam yim digle nga mën ko tudde ay sha'air yëpp muy ay jaamu yàlla ci pas-pas. Mm-hmm. jëkk mm-hmm. jullit ñëpp la ko diggalandoo ñu tënkoo ci. Mm-hmm. boo xoolee tam. ci wàllu julli. ñëpp wa salaata. waaye daal tey ni wa aatu zakaata. na ngeen julleendoo. na natt li nga xamante ni mooy azaka. azaka boo xool am na ci boor boo xam ni jullit ñëpp a koy génnandoo. am na loo xamante ni ku ñorle rek da ngay génne. wa aatu xaqahu yawma xasaadihi waaye message bi ñëpp la war a dox. Mm-hmm. aj mm-hmm. gis na ni mbooloo moo koy def. Mm-hmm. lépp loo ci jël da ngay gis ni. mbooloo moom moo koy taxawee. waaye mu am yeneen message yoo xam ne dafa gën a leerati. mooy inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni boo xoolee yàlla dafa wax ni na ngeen xam ni xeet bi sama xeet la. te man maa ngi seen borom kenn laa mm-hmm. maa leen bokk jabooti yéen ñëpp mm-hmm. kon nag na ngeen ma ànd jaamoo ma mm-hmm. kon loolu dafa bëgg ba tey benn la waat jullit ñi benn la waat xeet bi benn la waat ñëpp aay ji daf ko ñor ba boo doxaatee loolu mi ngi nekk ci suuratul Anbiya waaye boo doxaatee ci suuratul Mu'minuun da nga koy fekkaat aay ji nga xam leen wutale mooy fattaquuni nga xam ni kon message bu ñor suñu borom la bennoo bokk nga gis ni tam waxaat na jullit ñi ni leen wa'tasimu bi hablillahi jami'an mm-hmm. na ngeen àndandoo yéen ñëpp bu kenn des mm-hmm. ngeen mooy ci buumug yàlla gi mm-hmm. euh, mu fassiru yi ñii ni buumug yàlla gi mooy alxuraan ñii ni mooy sunna kenn ku ci nekk am na noo ko dégge waaye werantewuñ ci jàppandoo gi ak ci booloo gi innamal mu'minuna ixwa daanaka jullit bi nga xamante ni sax moo dugg démb ci lislaam boo ko laajee moom la innamal mu'minuna ikhwa kon ñëpp a xam ni jullit ñëpp mm-hmm. ay mbokk lañ mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa ko mm-hmm. ci beneen xadis wax ni al muslimu axul muslim gone yi bu ñuy jàng daanaka ci xadis yooyu la jëkk jàng kon benn jullit ñi ci lislaam lu fës la loo xam ne maanaam foo xool ci téere bi gis ko foo xool ci sunna mm-hmm. gis ko mm-hmm. noonu mënuñu diggalee tam mm-hmm. te insister ci ànd noonu lañu ñu diggalee tam ñu bañ a tàqali ko te ñoo tere bu baax a baax a baax ñu bañ a tàqali ko yàlla ngi wax ni wa atiu llaha wa rasulahu wala tanaadaru fa tafshalu wa tadhaba rixukum na ngeen ànd loolu def mbooloo def bloc topp yàlla akub yeneen tam waaye nag bu leen tàqalikoo bu leen xëccoo bu leen beddi konte mm-hmm. su ngeen ko defee rek da di daal di def li nga xamante ni mooy yajax wolof moom la tuddee yajax mooy échec li tubaab di wax échec mm-hmm. nga xamante ni ku la jéemal rek day lay daal di man mm-hmm. boo xoolee xeeti démb yi jafe-jafe bi am mooy euh, daanaka kenn ku ci nekk dafa jàpp ni ah bu ñuy néewal doole sa morom. Mhm. sa yoon nekku ci. Mhm. danañ koy jàng ci asiraanu salaasa. Mhm. ñetti nag yooyu nga xam ne. Euh, dañoo boole woon seen doole. dañu fexe ba sacrifier kenn ki. Euh, ñaar ñi des fa ba ñu bëggee néewal doole kenn ki ki ci des dañu ko bu ma fi ba. ndax xam naa ni ba kenn ku njëkk a faatoo. ci la faatu woon bu yàgg man. nga xam ni kon euh, jullit ñi. benn bloc lañ. waaye lislaam daf leen tere tam mm-hmm. ñu tàqali ko mm-hmm. euh, di nga gisaat suñ borom di wax naan mm-hmm. ana aqimu diina wala tafarraqu fii nañu taxawal diine ndax boobu ma nga tàmbalee ca charan lakum min diini di ñëw nga xam ne dafa def synthèse diine yëpp tënk ko ci biir lislaam waaye tam ni wax ni na ko taxawal waaye bu leen ci tàqalikoo tàqalikoo foofu tam si lamin ñu bari dañuy jàpp ni ñàkk woorandoo wala ñàkk a wareendoo loolu ak tàqalikoo la loolu ak tàqalikoo mm-hmm, mm-hmm. diine dafa may nit ki liberté tey jii yow mën nga nekk ci dëkk boo xamante ni bokkut ak fi ma nekk li ñuy tuddee ixtilaaful maqaala mm-hmm. ñu bañ a woorandoo te fekk tàqalikoo amul amul suñu diggante waaw mën ngaa gis koo xam ne tey jàpp nga ni siqa la doy na la nga woor ci li muy woor te fekk kooka bañ maa doy tey. oustaz loolu war nga ci insister ndax Sénégal moom fii ne. Hmm. damay woor tey ki warul suba ma noonu ko jàppal ko en jàpp ni moom jullit wala dañoo bokk. loolu nag xëy na dinañ ci ñëw ci biir ndax. Hmm. maanaam boo gisee tàqalikoo boobu li ko gonflé. Hmm. maanaam du jullit ñi seen waaye média bi ci boppam moom moo indi maanaam xeetu tàqalikoo waat boobu. moom moo koy gonflé. ba mel ni dara la. te fekk doonul dara. ndax. tey moo la doy man suba moo ma doy. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu la. te lu ci la yonent bi joxe. yu mm-hmm. ñu joxe. lépp mi ngi fi. ndax suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. waaw kon. mu naan yonent bi tam. gaa ñi nga xamante ni dañoo bokkaale yàlla ci bok wala takunu min al mushrikin. yaa sa gaa ñi bokk ci ñi ragal yàlla. mu mel ni. dafa def foofu benn point d'interrogation ni ko waaye ñan ñoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokkaale. Mm-hmm. mu ni ko mu min alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan mm-hmm. kullu xisbin bima ladayhim farixoon mm-hmm. ñi nga xam dañoo séparé seen diine def ay kuréel kenn ku ci nekk sëgg ci dara jàpp ne yaa nekk ci dëgg mu ni ko bu ci bokk mooy li nga gisaat ci penc mi tey même saa dégg ma ne kon dafay mel ni problème am na ndax kon loolu dafay mel ni yonent euh, borom subhaanahu wa taala daf ko boole ci mandargay bokkaale yàlla muy tàqale ko. Mm-hmm. ni ni ni aaya bi ñëwee daf ko boole ci mandargay bokkaale maanaam ñi bokkaale yàlla dafa bokk ci seeni mandarga dañuy faral di tàqale ko kenn ku ci nekk foog nga yàlla ci dara. Mm-hmm. est-ce que kon problème amul ci islam su fekkee mën naa ko waxee noonu ndax tey dafa mel ni islam euh, baatu euh, firax boobu ngay ñu jëfandikoo dafa mel ni bari na lool ci diini l'islam ay kuréel. daanaka xaw nañoo man a wax ne sax kullu xisbi maa ladayhim farihun jooju am na ci kenn ku ci nekk foog na ni yaa ngi ci dara yow gisoo ni kon problème am na fi mu ne ndax bu fekkee l'islam alxuraan yi nga fi yëpp ay recommandation yo lu alxuraan joxe mais est-ce que ñu ngi koy pratiquer. waaw est-ce que jullit ñu ngi koy jëfee. mën nga ni problème am na. man mm-hmm. nga ni problème amul. Mm-hmm. li tax problème amul. Mm-hmm. mooy fi mu toll alxuraan bi muy wax ak yëfal ñi dàqali ko. bokkut ak tey li nga xamante ni dafa judd ci lislaam mhm. di ay kuréel yoo xamante ni mën nga ni richesse lislaam la mhm. ndax kuréel yooyu tey moo yokk li nga xam ne mooy al fikrul islaam yi pensée islaam mhm. loolu moom moo ko yokk kenn ku nekk école bu nekk am loo teg ci table ci wàllu xam-xam ci loo xamante ni danga ci wuuteeg sa morom mu nekk richesse te du la ngeen tee ñu dund loolu mooy magi démb ya waaye jafe-jafe bi fi mu nekk. Mhm. ba nga xam ne man ngaa dut baaraam ni problème am na. Mhm. mooy ñu tey ñi niñ ko dundee. parce que dañoo dañoo dell jaar di jël texte yooyu ak mhm. pensée yooyu. xeexe ko def ko ngàndaay waaw te mag ña defuñ ko noonu. ndax école bu ci nekk ci école la juddoo. te boo xoolee ci ahlu sunna wal jamaa. ci la li nga xamante ni moom mooy mu'tazila la juddoo. boo xoolee lenn lu ci nekk ci biir école la juddoo. école bu ci nekk rek ci. biir benn université la dem ba borom gis ni bokkut boroom ay ay ay ay gis-gis mm-hmm. mu daal di eh, beddiku benn école boppam mm-hmm. waaye problème bi ci tay la nekk mm-hmm. kon eh, loolu nga wax noonu yent bi yàlla suñu borom tere woon nag ko tere woon nag ko bu baax waaw ah, loolu kon da gis bu baax a baax eh, ci xadiis itam yent bi sallallahu alayhi waxoon ni képp koo xamante ni mbooloom jullit mi tàqalikoo nga ak ñoom lu toll ni chibro mhm. nee na dugal nga sa bopp ci ak réer mhm. te réer moom ku nekk xam na ni ku réer sa war a moo koy gindi mhm. ndax sëñ Tuubaa misaaloon na ko ca Jolof bañ fa nekkee bis dafa xëy ni nañ ko dajaleel matt mu bare bari bi ñu taxanee lu mat weer ñu toog mag ñëpp di taxan bi ñuy taxan bis mu xëy rek ñu taal leen mm-hmm. ñu taal matt mi mu nekk sébb boo xam ni sawara yi kenn xamul fi mu yem mm-hmm. euh, am mag ñoo xam ni dañoo jóge woon fii ci réew mi doon wër sëñ bi xamuñ fan la nekk ba ñu mm-hmm. gisee sawara la ñu ne nañ fa daal di dem ndax xëy na bu ñu fa demee ñu gindi ko bi ñu ñëwee fa fekk foofu di jataayu sëñ bi est euh, bi ñu ñëwee ba nuyoo sëñ bi ni leen naka yoon wi ñu ni ko ñun de Mbàkke dañoo réeroon sax waaye sawara yi moo ñu gindi hmm. mun leen naxa kay ku réer sawaraa koy gindi hmm. waaw fi mu toog di waxtaan ak ñoom am lu jóge ci permi daal di wadd ñu daal di ab saay-saay la daal di koy tàpp mu faatu ñu ni ndeke si ndax la hmm. mu ne waaw noonu loolu waaye di bañ ko jaawale ak moom bu loolu nga gis ni yooyu ay ay ay sew sew la ak ay yu am solo waaw. Hmm. waaw hmm. xëy na. Euh, macha allah oustaz euh, mais bëggoon naa bala ñuy ñëw foofu ba man bëggoon naa nga leeralal ma ba euh, kon dafa mel ni ñàkk compréhension moo am ci nit yi tey hmm. ndax dinañu cité ay tarixa moo fi nekk ak ak ay firaq gis koo xam ni maanaam fi mu bokk bu dee tarixa bi mu bokk dafay foog ñoom rek la yàlla àndal ci lépp ñoom lay déglu kilifa ak tarixa googu naka noonu xataa ba ci firax islaam yi tey da ngay gis wahabi yi bi di dal ki nga xam ni moo bokk ci ahlu sunna wal jamaa léegi loolu maanaam kon amul problème maanaam maanaam euh, école yooyu amul problème tarixa bi doon ak tijaani kii Cheikh Abdul Xaadir Jilaani sos ko comme ni ko sëñ Tuubaa waxe fa kullu wédin yuridu murida mm. bu amoon problème kon lu wax loolu kon amul problème maanaam kii gise nii kii gisee nii kii sos nii kii sos nii te lépp bàyyi ko ci yeneen saa kon problème bi mi ngi ci ñàkk kee dégg kon ci sa biir wax daal li jaadu mooy nit ku ci ne la mu la mu la ko doy ba mu nekk ci ànd ak ka ko sos mu ne ca te ëmbal ñëpp aw yiw xam ni kenn ku ci nekk la mu nekk aw yoon la woo xam ne wu wér la te yaakaar naa loolu si bi insisté na ci yow loolu lan nga ci wax mbokk yi nga am ñooy seetaan. waaw xam nga boo gisee diine daanaka noonu la juddoo mm-hmm. te itam noonu lay delloo ci boromam mm-hmm. diine islam laataa muy ñëw am na ñu ko tam hiidaloon mm-hmm. defaloon ko introduction ndax yàlla su doon li ñuy wax ni mooy benn kon benn yonent lay génn lay lay yónni rek mu ñëw régler problème yëpp ah, ah. waaye da gis ni dafa yónni ay yonent yu bare bare bare soo ko résumé ci yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. bi mu ñëwee tam benn xalifa mënoon na fa nekk hmm. waaye ay xalifa yu bare bare bare xalifa yooyu laataa ñuy jeex école yi commencé nañ hmm. école yi ba ñu commencé kenn ku ci nekk li nga indi richesse la am njàngale la ndax am na ñi nga xam jàpp nañ ni dañoo jaar sax waaye jariñ nañ ci xam-xam loo xam ne tey mu ne su koo misaal bi ñu jógee tam borom xam-xam yi noonu lañ mel hmm. ba ci tarixa bi bi ñëwaatee hmm. tey nit ki bu dee dox ci yàlla hmm. day dem ba am zawq boo xam ne ndax ñaar moo am ndax xel zahir lay waxal mooy lisaanu zahir comme ni ko Ibnu Arabi leer lay ci fusus waaye baatin tam lisaanam mooy zawq nit day am zawq boo xam ni mënut mënatu def lu dul dem taxawal loo xamante ni moom lañ doon zawq. zawq maanaam mooy maanaam yëg-yëg. boo xam ni. Mm-hmm. tey man nga koo tuddee firaasa. mën nga koo tuddee basira. Mm-hmm. mën nga koo tuddee loo xamante ni lépp dafay dugg ci loo xam ni xëy na ki nga xamante ni amul baatin mën na ko bañ a yëg. Mm-hmm. loolu moo indi tarixa yi. daal di mujj sosu. tarixa yi tam. ba ñëwee ci biir tarixa yi hmm. boo xoolee euh, tey boo xoolee ci biir tarixa yi dafa bariwaat ay tarixa hmm. yu sosuwaat ci biir waaw tey boo xoolee euh, tijaaniya hmm. ya sosu na ci biir janfariya sosu ci biir lenn lu ci nekk ci biir tijaaniya boo xoolee xaadiriya tam mu ëpp tarixa yu sosuwaat ci biir xaadiriya noonu la tam ba ci tey boo xoolee ba ci tarixa yi nga xam ne ñoo nekk tey fi mu toll nii da gis maanaam kuréel yi ni mu tàmbalee am. biir waaw ci biir tarixa yi mu leer na ni boo jàngee njàngum lislaam démb. Hmm. maanaam da xam ni fa mu jëm rek mooy. fa da nga xam ne après quatre cent ans rek fa mu jëm mooy. fa fa lay jëm waaye mën na bañ a jur problème. Hmm. mën na bañ a jur problème. Hmm. ndax itam. Euh, nit ki jàngale bi muy jàngale. mënoo koo arrêté daal ni man sama jàngale rek mooy dox. Ah. Oustaz xam naa dogguma la mais waxtu wi laay njëkkanteel te dafa am ñaari point yu am solo. Mm-hmm. yoo xam ni dama bëgg nga insister ci bu baax mooy euh, mag ñi. Mm-hmm. dellusiwaat ci maanaam démb. Mm-hmm. naka lañ defoon ba doonoon benn. jullit ñi fii Sénégal. waaw mag ñi. dañoo am sens. sens bi ñu am mooy dañoo fekk réew mi. yàlla bind ko noo xam ne réewum jàmm la réewum bennoo la. Euh, loolu dinaa ci citer rek benn. Euh, koo xam ni borom xam-xam la. Mm-hmm. raxaal la raxaal mooy koo xam ni dafa daan tukki day tukki. Mm-hmm. ku mel ni Ibnu Xaldun. Mm-hmm. wala nga ni euh, ñoom euh, Xalqashandi wala ñooñu. nga xam dañ daan tukki di wër ci réew yi. tukkikat boobu dafa daan jaar fii ci Sénégal. waaye su masaan jaar da daan wax ni. li mu xàmmee woon Sénégal mooy li ñu Rio Frisco ci Hollande la ko doon moom Hollande la. waaw Rio Frisco Rio moom mooy yoon. Hmm. Frisco mooy lu hmm, loolu moo nekk Rufisque tey Rufisque gii tey. Ah, moo joxe turu Rufisque mooy mooy waaw hmm. yoon wu wa. ndax Sénégal. lool. waaw yoon moo sedd wa Sénégal amul nees amul glace. déedéet. <laughs> waaw xam dañoo amoon euh, li nga xamante ni mooy ñawkat boo xam ne mi ngi nekk ci ak jaahiliya moo ko indi. Mm-hmm. mooy xamiyatal jaahiliya boobu alxuraan di junj. Mm-hmm. nga xam ni euh, kenn daawul bëgg ab doxandeem boo xamante ni dafay ñëw ci sa biir. Mm-hmm. wala yu mel noonu. ku ñëw rek dañ koy faagaagal. dañuy daan faagaagal dañoo gaawoon ci xeex gaawoon ci yu bare bare Sénégal nag yàlla dimbalewoo la lool ci ak sedd goo xam ni. nekkoon na fi. mënoon a toloore daal mën a fat ab étranger. waaw kay beneen bu topp tam mooy mag ñi bi ñu ñëwee. Hmm. dañoo am mbokkoo goo xam ne moom lañu fekk. Hmm. ndax Sénégal ay empire ñoo fi nekkoon comme ni nga gisee raison yi. Hmm. mu nekk quatorze raisons. bu njëkk ay empire la woon comme nga ni Kajoor. daan ni Bawol Saalum te yooyu yëpp dafa am benn. Euh, kii boo xamante ni moom moo leen jur hmm. bi nga xamante ni nag dem nañ bañ jël seen indépendance ba kenn ku ci nekk di dem di créer wu ay empire hmm. ak bokk dafa judduwaale kenn hmm. ku ci nekk ba ngay dem da ngay yóbbaale bokk nga gis da ngay saalum saalum bi nekk saalum waaye bawal la ay bokkam yëpp ña nga kajoor beneen bi ci topp tam mooy réew mi mag ñi dañ koo tabaxoon ci wàllu loo xam mooy kalante hmm. kalante ko kalante diw diw moom mooy kalam njóobeen bi ci sant waaw ak côté mbokk ay hmm. nijaay doomu nijaay kay jóob kan hmm. yu mel noonu nga mën a jël ci jeng ñan ak yu mel noonu kenn ku ci nekk euh, ba ci li ñu wax maame yooyu yëpp dafa sude woon Euh, population bi. Mm, loolu moom jural leen. waaw te euh, man gisaguma ko dox naa ci ay réew waaye gisuma ko ci beneen réew. ah amul ci yeneen réew gisuma ko gisuma ko. Ah, waaw ah, fekkuma ko ci beneen réew. waaw ah, macha allah euh, beneen bi ci mooy l'islam. Mm-hmm. bi ko mag ñi adapté mu ñëw ci seen biir. Mm-hmm. dafa nekk diine bennoo comme ni ma ko waxaloon sànq. waaw mu daal di ñëw dëggal loolu fekk si leen ci lañ newoon. waaw ci ndax tam alxuraan. Mm. Euh, ak lislaam mm. fu ñu fekk dara lu rafet. lu rafet dañ koy dañ koy dañ koy adapté. macha allah lislaam bu ñu fekk lu rafet rek day mel ni moo ko moom. Mm. daan koy dugal ci biiram. bàyyi ko mu nekk. fu mu fekk lu ñaaw it da koy rejeté. Euh, beneen bi ci topp itam. mooy mag ñi. beneen sens bi ñu am tam mooy li ëpp ci réew mi dafa nekk ay réewum jullit. Hmm. ba nga xamante ni chrétiens yi am nañ fi waaye pourcentage bu ndaw la hmm. te chrétiens yi fi nekk tam ci réew mi. Hmm. wax dëgg du ñu chrétiens yoo xam ñuy indi jafe-jafe la. du ñuy yee fitna daal du ñuy yee fitna. beneen bi ci topp itam. te ñoom it dafa mel ni lislaam dafa ñoo dénkoon pour ñu mën a dëkk ak ñoom. ñu dëkk ñoom bari na ci alxuraan. yàlla wax ni terewuma leen. ñi nga xamante ni noonu wuñ leen. ci ñoom kon euh, loolu tam richesse la. beneen bi ci topp tam. te nekk lu am solo. Mm-hmm. mooy mag yëpp bi ñu àndee doon i mm-hmm. yàlla di leen xéwalee. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu bokk ci benn école. muy almazhabul maliki yi. ñoom ñëpp ci Malik lañu bootuwaat. Ah, mag ñi fi jaaroon mag ñi fi jaaroon ñëpp. yàlla dogal itam bañ ko doonee ci wàllu pas-pas tam ñoom ñëpp bokkaat ci benn école bu ñuy wax ak ashariya. ci ñu bokkaat ci waaw. ci wàllu tasawuf itam mm-hmm. ñoom ñëpp bokkaat ci benn école mooy tasawufu imaam Junaydi macha allah ñoom ñëpp ñu dajawaat ci. kon ñetti école yi daal wute wuñ ci. wute wuñ ci benn yoon fiq mazhab maliki lañu. bi ñu demee ba ci quatre-vingt yi. Mm-hmm. ci la li nga xam mooy alwahabi yo commencé fee feeñ. Mm-hmm. commencé nekk benn la xalila boo xam ne. dafa beddeeku. te ba tey taxul ñu bari. moo tax euh, beneen bi ci topp tam. nga gis ni. mag ñi dañoo amaatoon beneen tawféex muy euh, ziyaare yi te yi ñu daan ziyaarante seen biir ak jëlante gi ñu daan jëlante soxna seen biir hmm. kenn ku ci nekk di àddu yàlla sa morom. Hmm. di ko ziyaare. macha allah ba noppi itam ñuy waxtaan. Hmm. di dialogue. problème bu masaan am ñuy waxtaane problème bi. da nga daan gis Baye Niass déplacé wu. Mhm. dem wala Sëñ Fallou Mbacké déplacé wu. wala Sëñ Basirou. Mhm. wala Mame Abdou. ñuy demlante. ci ci ñu mujj ñi rek. waaw ndax ñi leen jiitu tamit. noonu lañ daan ci loolu lañ lañ ko fekkoon. Mhm. Euh, beneen bi tam mooy ci lieu de culture yi tam. muy jàkka. jàkka de lu mën a benn leen. jumaa. ba ci niñ tabaxee woon seen dëkkuwaay ay penc. dafa nekk loo xam ne. luy benn leen mbooloo mi daan mos a tabax dañuy di wut moo xam ni ñu fa la ñuy fa la mm-hmm. kon loolu moo indi woon seen gànnaaw. macha allah démb. macha allah macha allah Oustaz ci résumé bi nga xam ne résumé nga ñu ko bennoo mag ñi ak li waraloon seen bennoo googu doonoon lu sax waaye nag dafa mel ni Oustaz fi ne euh, man naa ne koy bëgg a ñàkk. Mm-hmm. dafa mel ni bennoo googu. ku am xel. Mm-hmm. tey xalaat yaa ngi gis ni ñu ngi koy bëgg a ñàkk. Mm-hmm. léegi ci li ngay daanele maanaam yow lan gis ni mooy sabab yi nga xam ne mën na def ñu ñàkk bennoo googu tey jii. si mm-hmm. li tax ñu bëgg a ñàkk bennoo googu. lu diis la. waaye mënees na ko séddale ci ñaar. bi ci njëkk euh, dafa nekk jafe-jafe yoo xam ci suñu biir la nekk. muy ay parparloo. ak itam kenn ku ci nekk bëgg a yëg ni yëfi sa yëfi bopp la keneen bokk ci mm-hmm. loolu tam mm-hmm. ñi ngi santaat bu baax yàlla mm-hmm. ci suñu sëriñ si xeex buñ ci xeex la ko dalee ca mag ñam ba ci ñi fi nekk tey kenn ku ci nekk li liñ ci def lu kenn dul weddi la waaye dafa am beneen facteur boo xam ne ci biti la nekk nga xam ne nekkul ci biir yoon yi euh, nga xam ni daanaka ñu bari xamuñ ku leen moom te mu añ ci wàllu média bi mm-hmm. média yu bari samp ci réew mi mm-hmm. donte ñi nga xam ne ñoo feeñ ni ñoo leen moom ay sénégalais lañ mm-hmm. waaye leerul ndax dëgg-dëgg ak est ay sénégalais moo leen moom moo leen moom est-ce que tam bu fekkente ni sénégalais moo leen moom est-ce que xalima ci yi ciy bind xalimay Sénégal la sénégalais la waaw jëmmi média yooyu jëmmi média yi ndax tam da nga koo xam ne maanaam fukki xelam. Mm-hmm. xalaatul mu saaga aw yoon man nga ciy jël bu yàggul am na benn journaliste bu wax. Mm-hmm. lu bon ni Touba yoon musiba la. Mm-hmm. Euh, fukki junni xelam xalaatul saaga Touba. waaye boo xoolee di nga xam ne am na lu ne ci ginnaaw. am na benn système boo xam ne lañ ko santoon defu ko. ay scandale am bari na. waaye mu ko saagaal na ñi ndax man ma noppalu mu féex. yooyu yëpp day daal di am ci. tàqali ko di nga gis eh, yenn chronique yoo xam ne mm-hmm. dañ gis ni donte kii ki ko def Sénégal la mm-hmm. waaye xel mi mu ko def de du xelum Sénégal mm-hmm. ah, loolu ci ci chronique yi xamee wuñ ko Sénégal waaw ba ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi da nga ci gis passe boo xam ne léeg-léeg nit ñi duñ ci yow exemple mën ngaa jël eh, fan yii rek damay surfer ma gis benn passe boo xam ne passe officielle la bu Tiwaawan ci ni mu présenté woon. Mm-hmm. waaye ka ca ne ma ngay wax loo xamante ni weneen yoon. Mm-hmm. weneen yoon woowu ñooñu dugg di saagante te xamuñu ni. Mm-hmm. ki créé base bi moom mën naa nekk sax Europe. mën na sax bañ a doon ci mën naa bañ a nekk sax jullit. mën naa bañ a nekk ci réew bi léegi nag moo tax ñu war a xam ne am na loxo boo xamante ni loxo bu gudd la te dëkkul ci réew mi. wala itam nekkul ci biir tarixa yi itam ñu ngi bëgg a tas tarixa yi. beneen bi ci topp gis nga bu yàggul bii mhm. euh, ñu ni Tiwaawan am na feebar bi feebar bu bon bii nekk ci réew bi yàlla ko suñu borom jóge ñu ni ki ko fa jëlee ki ko fa tàmbal Tiwaawan li euh, Tuubaa la jóge ah, moom siiw ah, te bañ ko xoolee wérul ah? bañ ko xoolee wérul ci ci ci ci ñetti fan ci la yàlla leeral lépp hmm? gis nga tam keneen ñu ni moo ko tàbbal Kaolack Kaolack gi nga xam ne. loolu sax war naa di lay polémique sax ba yenn gars yi naan ah Touba ñun teg ñoo ñoo ñu ko tegal yu ni mel nga xam ni kon dafay mel ni mooy li nga wax mën na indi ak tàqali koog jaxasoo. ki ko def. loolu la jublu dama ragal ni. Mm-hmm. dañoo nekk ci état boo xam ne. Mm-hmm. état bu war a seetaat boppam la. Mm-hmm. ndax am na loo xam bu wéroon sax. maanaam. waruñ ko bàyyi information boo xam ne dañ ko war bàyyi muy jàll. Ah, ah, ah. waaye ñun. sénégalais yi ñoo war a seetaat ñan ñoon la ñuy jiital. est-ce que ñu ñuy tàqale la ñuy jiital. Mm-hmm. waaw ñoom itam bu ñu amee conscience suuf itam ñu xoolaat seen bopp ci wàllu seen communication ni ñu koy doxalee. Mm-hmm. ndax information la yoo xam ne ku ko dégg day xam ne tàqale jullit ñi. Mm-hmm. moom moo leen tax a dégg beneen bi ci gën a fan yi moment yi ñu koy dund. mooy ñu bëgg ñoo tàqale suñu sëriñ si fan yi yëpp yaa ngi gis ñu naan sëriñ si dañoo tëju. Mm-hmm. Euh, léegi rek maa la ci wan benn vidéo boo xam ne. Mm-hmm. vidéo bi li ci xorom mooy njaareem la. Euh, waa ji bi mu demee mu ni sëriñ si dañoo tëju Touba léegi bàyyi leen seen sëriñ si ku leen mënul nangam ak nangam léegi baleen sëriñ si. Mm-hmm. baleen sëriñ si mooy baleen alxuraan ndax yow ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim alxuraan a ko wax. nga gis ni kon alxuraan moo ñu digal. ni ulaayika alladina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi mm-hmm. nga xam ni jàpp gi ñu leen jàpp alxuraan moo ñu ko digal mm-hmm. waaye am na benn loxo bu nekk ci biti boo xam ni moom mooy li ma la waxoon sànq rek mm-hmm. mën naa am amul sëriñ mën naa am sax du jullit ci dem vocal bi xamoo ko mën naa am sax du jullit waaye mi ngi lay wax ni sëriñ si dañoo tëj maa ngi lay waatal ci yàlla ni xam naa ci loo xamante ni xëy na dama ni moom du ko wax. Mm-hmm. ndax waxuma sëriñ sépp ci Sénégal. Mm-hmm. mën naa cee jël Cheikh Mouhamadou Mountakha. Mm-hmm. ba mbas mi tàmbaleegul. ci la jëloon ay nit. ñii mu jox leen dog ci alxuraan boo xamante ni duñ ko faat. ci ay sëriñ. ñii mu jox leen dog ci xasida ñii mu jox leen dog ci tur yàlla. ñoo xamante ni fa ñu tëju lañu ñu tëju di ko def ngir julli ci àdduna bi am jàmm ak ngir Sénégal am jàmm ngir taalibe itam am jàmm kooku boo wëlbati koo bàyyi ko foo jëm mm-hmm. beneen bi ci tam topp mooy même sëriñ si nga xamante ni ñoo fi des mm-hmm. tey suñ tëjuwul tam mm-hmm. ñu ni gis ngeen jàngoro ji <laughs> ñoom ñi ngi wax waaye ñoom ñoo fi tasaare jàngoro ji ñi ngi ni bu leen bu leen dajaloo ñoom ñi ngi dajale dajale nit ñi waaw indil la beneen cause boo xamante ni doo ko mën a défendre yow boobaa. jamono ji euh, man jortu naa ni. Euh, li yonent bi waxoon rek mooy jël sunna si yonent bi jël sa bi def ko ci roog seen. su dul loolu nit dina wax ak yow ba nga ŋaan. mu daal koy luqàcc. macha allah waaw mu luqàcc ko. macha allah waaw. Euh, Oustaz xam naa doogu wala suñu émission tey xam naa xajul ci waxtu yi nga xam moom lañuy faral di def émission bi ndax. dafa émission bu xaw a large maanaam thème bi dafa dafa dafa yaatu te dafa mën a jël lu bari ñu lay sant bu baax ci leeral yi nga xam ni indi ko te yaakaar naa mën naa gën maanaam indi ak yeewu ak compréhension ci nit ñi nga xam ne ñooy seetaan rawatina sénégalais yi nga xam ni maanaam dafa am lu ne ci ginnaaw te gisuñu loxo boobu fas leen yéene tàqale rawatina nag bu dara amee bu dara amee lu mel ni maanaam ak tawat am comme corona bi wala benn événement danañ ci profité dugal fa ay information yoo xam ni dafay tàqale te loolu oustaz indi na ci yaakaar naa loo loo xam ni warees na cee mën a jàpp oustaz daal xam naa ñu lay sant di sàkku tam boo ñu ko mënee may incha allahu taala ñu dikkaat fii gën a leeral ndax émission bii bu tey bi te mu tey bi tem la boo xam ni maanaam lu ñu war di traité la ndax moo mën a jur jàmm ñi nga xam ni Sénégal amee na ko depuis maam ba tey te ñu gis ni ñu ngi ci yoon nag boo xam ni dalul xel mën nañ koo ñàkk am na sax dañ lay bàyyi sa bu mujj euh, mu mel ni li ñu ci waxtu sax xaw nañ ko dépassé waaye waxtaan bi moo ni mel euh, soo tàggu incha allah taala ñu wax ci dégg. waaw sëñ Lamine kon de xanaa. Hmm. sant la hmm. hmm. yaatal. ak itam ni nga bëggee lépp rek di jaar yoon di ñaan télévision bi suñ borom moom mi nga xamante ni mooy borom tawfeex mm-hmm. mu yóbbu ko ca fa ñoom Al Jazeera nekk amiin amiin ak yeneen télévision yi ndax kenn ku ci nekk mm-hmm. euh, damay bàyyi xel lu bare bari mm-hmm. euh, sang bu tedd ba euh, Sidy Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm amiin amiin fa mu tàmbalee woon gàddu ay journal di jaay ak yooyu yëpp waaye tey gis nga mu bàyyi fi loo xam ne àdduna bépp ñoo ci jariñoo mm. kon nag yoon waa ngi noonu mm. yàlla leen suñu borom defal tawfeex mm. euh, ba ngeen gën a jariñ askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf al oustaz Maodo xaadimul xadim ci euh, possibilité bi nga ñu may tey ci ñëw ci suñu émission bi ñu tuddee bibliothèque de l'islam ñuy séntu yeneen i mi xam-xam ci yeneen i émission ak bibliothèque de l'islam di wax bokk yi ñuy seetaan bu leen fàtte abone ci kër gi nga xam ne mooy Faaida TV ndax niñ ko waxee kër la goo xam ne njariñ rek lañu fas yéene mun koy indil ñi koy euh, seetaan di leen jox dig daje ci beneen numéro ci seen émission bibliothèque de l'islam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.